waxtaane lu jëm ci wàllu éthique ak euh, citoyenneté euh, xool euh, li nga xamante ni moom la moom la laaj ci société boo xamante ni da nga bëgg jëm ci kanam ndax dañu nekk ci société yu nga xamante ni fépp la nat xaw na yaatu tuuti moo di adduna bi dafa jànkonte ak ay ay crise de valeur yu yu metti crise yooyu Euh, li ko mébét yëpp li ko indi yëpp moo di ñàkk euh, euh, dëppale sunu sunu sunuy jikko ak li nga xamante ni moom la suñu jamono laaj ba mën a fexe ba jëm ci kanam jikko yooyu nag jikko la yoo xamante ni euh, ñu ngi koy fekk ci njàngale bi nga xamante ni mooy njàngale yoon ci bi sallallahu alayhi wa sallam njàngale mag ñu baax ñi nga xamante ni noo fësal diine euh, euh, ŋànk ko dëgëral ko surtout fii ci Sénégal njàngale moom toujours daf ñuy delloo si ñu xam suñu bopp xam boobu ñu xam suñu bopp ci la mën a tabaxe suñu àdduna tabax ci àdduna ju dul màbb Euh, nu jàpp ni euh, loolu war nañ ko waxtaanee pour attirer attention d' abord su attirer suñu attention boobu xam problématique yi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu jànkonteel ak yan euh, pexe la ñu mën a def ba crise de valeur yooyu nga xamante ni suñu société yi dañ ko am ñu mën leen solutionner te loolu ci njàng njàngale lay njëkk a jaar njàngale malheureusement système éducatif bi nga xamante ni moom la ñu am échoué na ku ne gis na li ci am euh, du ma wax ni responsabilité bi ci état bi la wala responsabilité bi ci euh, euh, sëriñu diine yi la wala de mais jaaru na nu toogaat laajaat suñu bopp fi ñu bëgg a dem fi ñu bëgg a dem nag pour ñu mën fa yegg il faut que ñu ràngoo ak ay valeur ak ay jikko te jikko yooyu jàpp nañu ñu li ci diine taataanal bu nu ko toppee fa ñu bëgg a yegg dinañ fa yegg loolu mooy. waaw waaw xam nga violence moom euh, euh, ku ne xam na ni société sénégalaise dafa nekkoon société bu pacifique le sénégalais par essence nitu jàmm la euh, dafa nekk ku bëgg jàmm mais li ñuy gis ci phénomène yi dafay delluwaat rek ci li ma waxoon ni. violence beeg la ko la ci wundu yëpp li ko indi moo di euh, d'abord y a la crise des valeurs mais également aussi euh, échec euh, système yi parce que chômage bi bëri na nit ñi aussi aussi bëgg raccourci y beaucoup de raccourci waaw am am bu gaaw bon on ne cherche pas à faire des efforts du ñu def effort ngir ngir am jaarale ko ci yoon wu jub mais dañuy wut raccourci aw ma liggéey damay dem agressé aw ma liggéey damay dem sàcc aw ma liggéey damay euh, waaw waaw jalgati bon yooyu nag mooy dem ba nga xamante ni nit ñi seen réflexe dootul nekk réflexe de euh, voilà de de contrat social mais réflexe euh, réflexe sous euh, individualisme en fait c'est justement l'avènement de l'individualisme qui explique moo explique li nga xamante ni moom la ñu gis ci société bi euh, muy conséquences yi di violence beeg euh, ya ca aju yëpp bon loolu nag bu amee en tant que religieux am nañu responsabilité wu woowaat nit ñi ci ñu xam seen bopp xam seen bopp boobu mooy dellu ci li nga xamante ni mooy sunu euh, sunu euh, la base morale base euh, jikko bi nga xamante ni mag ñu baax ñi dañ ñu ko jàngal dañ ñu ko dañ ko taataanal ci seen njàngale bëgg ñu baax bëgg ñu ñu tabax àdduna ju dudul màbb loolu nag la ñu bëgg a waxtaane fii ci Tivaouane pour seet ci ay solution woo ci ay boroom xam-xam pour ñu mën koo saytu génne ci ay euh, proposition yoo xamante ni xëy na bu ñu ko joxee euh, ñi yor wàllu adduna mais aussi ñi nga xamante ni dañuy yëngu nekk ay leader religieux dañ ko mën a euh, exploiter pour corriger li nga xamante ni war nañ ko mën a corriger ci suñu société pour dem ci yoon bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a dem moo di yoonu émergence parce que émergence li ma ko waxee problème mu mentalité la bu mentalité yi changé wul xaal na fi pétrole am na fi or am na fi jama am bu fekkee ni mentalité yi changé wul duñu dem ci duñu dem ci kanam. ok